fulla fayda dëgg nekk ci lislaam bëgg Serigne Touba lépp a daje ci moom kon li muy jàngalaate surtout ñun ñi nga xamante mbiru àddunaa ñu tax a jóg di xëccoo war na ñoo xam ne xëccoo am na waaye li gën a am solo mooy Sénégal am jàmm parce que booy xëccoo ba jot ci li ngay jot te jàmm amul la nga fas yéene mënoo ko def kon tey jii bu dajee ak li xew ci réew mi ku nekk gàddu sa kàddu di wax jàpp ne li ngay wax noonu la te li ñuy wax di yàq suñu ñëwee fii war nañoo ñaan Sénégal am jàmm nit ñi tënku ci ku ne am nga xalaat ku ne am nga xol ku ne am na foo féete waaye terewul li ñu ëpp doole mooy jàmm Sénégal ñun ñëpp ñu tënku ci ku ne di wax lu am warma lu am fulla lu am fayda te lu am njëriñ moo tax président Macky bi mu ñu yónnee